koy jàppee léeg-léeg di doxantu. Mhm. di filfilaale leen rek moo ma métti nag. Mhm. Euh, dama fay xaw a wéet tuuti. Mhm. ñaanal ma nag soxna si ñëw nag. Ah, waaw loolu kay ñun ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax a baax. ñu koy lijjanti daal loolu. ñu ngi noonu. waaw xam naa moom instant bi namm nga soxna si namm nga Sénégal namm nga. tax na damay ñëw si loo xamante ne waxuma ko nag nit ñee ko wax àdduna bi yëpp ñoo ko wax sa diggante ak Alice parce que dégg naa yéen ñaar dafa am lu ngeen sekk si biir. mais Diop yow laay waxal parce que parce que depuis tout à l'heure bi ma lay posé question la ñeex da nga ma doon tonton Diop Fall. xam nga lu ma soof ci yow nga baal ma non dama lay wax rek nit ki boo bëggee laaj pour xam da ngay laaj pour xam mais bul tuumalaate. mais tuumalaate wu ma nit ñi ñoo ko laaj si internet bi ma gis ko ñëw wax ko nee nañ seen diggante yéen ñaar dafa lus te man sax li ma gën a dégg mooy yéen ñaar da ngeen doon génn ba un jour ànd ngeen fii Paris. loolu laa bëgg nga leeral ko. <laughs> fii nu lii. fii Feeling Dakar. <laughs> léegi Diop Fall. laa yu. am na wala amul yow kay leeralal ko ñi koy wax du dañ laa tuumaatee waxal. mu c'est-à-dire bu ma waxul. Mhm. muy nekk tuuma. Mhm. te su ma noppee. ñu ne lan moo tax waxul. Mhm. ñàkk a dégg naa sax yéen ñaar yéen a bokkoon chambre ay waay. <laughs> sëñ yow mi nag yow mi Macron war na laa woo de yow mi da nga yow ku garaw nga nag yow. waaw Diop Fall man yëpp waxuma ko waa internet bi ñoo ko wax. Alice. Mhm. muy maam yàq Cissé. Mhm. sama jigéen la. Mhm. sama xarit la. sama rakk la. sama partenaire la. li nga wax yëpp am na lu ci doon dëgg mais am na loo ci xam ne ay fen la nga baal ma non parce que ci ci ci lii may wax damaa bëgg mu leer déglul non non déglul rek man doo ma yóbbu mukk mais Diop man jéem ma laa yóbbu mais ah. waxal rek mu leer li si nekk dëgg wax ko li si nekk li si ginnaaw dëgg nga wax ko waaw léegi wax ma tuuru ki la ko wax internet ma porté ko plainte wax ma kan la. mais internet man si commentaire yi laa dem ma xool parce que tamit su ma waree def ak yow émission damay travail émission bi en amont léegi man yi ñu lay laaj damay ñëw fii nag bëgg la ko wax pour nga leeral ko. laa léegi leeralal la. feem leen lii moom naa la ko wax. bii ah. mooy sa émission bu njëkk mooy bu mujj. Ah, point déedéet waa di lii amul virgule point. déedéet d' accord ma leeral tuuti. waaw Alice sama jigéen la sama xarit la. Mhm. liggéey nañ koor gi. Mhm. mu nekk ci koo ni mooy doon sama soxna. Mhm. a Ramadan a Paris. li nga wax yëpp lii moo ciy dëgg muy ànd naa man ak moom ñëw Paris. mais bokkoo leen chambre d'hôtel. waaw mais ñun tamit ah. xanaa oh, man mais mais nan lay ànd ak eh, eh, koo xam ni sama jarbaat la sama rakk la sama xarit la nga naan bokkoo leen hôtel te du man dong maa ñëw man la ak Baye Ili Daba Soumaré Mbaye Diop Fary Mbaye Alice mm. moomu ngay wax mook Daba Soumaré ñoo bokkoon chambre. kon kay non ñu àndoon ak Moussa Seck ndeysaan. Mhm. moo ñu fi indi woon. Mhm. non nit ñi lu ñu la ñuy wax. waaw léegi kon kay leer na léegi nit ñi yéen seetaan di ko tuumaal yéen ñëpp xam ngeen ne léegi yow yaat Alice sekkoo leen dara bi ñëw fi bokkoo leen chambre d'hôtel bokkoo leen leen fi ñëw pour liggéey Alice sa jarbaat la sa raq la sa partenaire de jeu la et tout ça. man ni nga koy nettali est-ce que du yow yaay internet bi non non est-ce que du yow yaay internet bi. non non nag def ak yow émission yombul. da ngay bàyyi xas tey concentré wu si. li yaa ngi koy topp di ko répété sama jarbaat la sama rakk la sama xarit la. séquñu lenn te yàlla rek tax. muy taalibe Serigne Babacar si di sama xarit ah. di sama lépp. vraiment d'accord waaw kon baax na léegi ñun man yow laay laay xaar léegi ñu xool. léegi xam nga nu ñuy def. Mhm. affaire bi jeexagul sonn naa. non yëpp faa sa journée xanaa ma dangay. bëggatee dugg suñu biir site internet da ngay tàppe www.feelingdakar.net Feeling Dakar di site bi nga xamante ne moo lay jox lépp lu gën a wóor ci information ay xibaar yu wóor te gaaw te leer.